Mes chers je tiens tout d'abord à vous accueillir chaleureusement parmi nous. Honorable invité, je vous exprime ma profonde gratitude pour avoir consacré votre précieux temps à être présent ici aujourd'hui et, à avoir fait le déplacement jusqu'à notre ville sainte, la Hadra de Léon Permettez-moi également de vous souhaiter un agréable séjour parmi nous. En cette occasion solennelle du Symposium général de Léon édition 2024, nous nous penchons sur un thème essentiel, la crise des valeurs et les leçons à tirer des enseignements de Mam Khalifa anhu. Messieurs, dames, dans notre société, la crise renvoie à la perturbation d'un équilibre précieux où le consensus social sur la morale est rompu laissant place à une diversité de valeurs librement véhiculées. Comme l'a su juste souligné Mam Khalifa dans ses écrits, la perfection de l'âme doit être le plus grand désir de l'homme que la lutte contre toutes sortes de dégradations. Cette lutte pour la perfection de l'âme, cette carte de valeurs élevées, résonne profondément dans les enseignements du Coran et de la Sunna où la moralité et la droiture sont des piliers fondamentaux de la vie humaine. Mme Khalifa Nias nous rappelle également que prodiguer un enseignement à quelqu'un est comme donner des yeux à un aveugle. Ces paroles résonnent dans nos cœurs comme on appelle à l'éducation, à l'illumination des esprits par la connaissance et la sagesse, telle que transmet par les enseignements sacrés. Dans le contexte actuel, nous assistons à un déclin de l'autorité, souvent perçu comme coloraire d'une conception erronée de la liberté, où la notion de faire ce que l'on veut prime sur la responsabilité et le respect des valeurs morales. Ce déclin d'autorité et de repères entraîne une crise de l'éducation et vice-versa. Il est crucial de reconnaître la crise que nous observons dans divers domaines de la société, qu'il s'agisse de la perte des bonnes habitudes entre citoyens ou de la remise en question de l'intégrité de nos dirigeants politiques, trouve ses racines dans l'éducation et les valeurs sociales inculpées dès le plus jeune âge. Ainsi, il nous incombe de redoubler d'efforts pour rétablir ces valeurs morales pour réaffirmer l'importance de l'éducation et la transmission des enseignements éthiques et spirituels tels que prônés Mam Khalifa Niass et ancré dans les enseignements du Coran et de la Sunna. En définitive, je vous invite tous ici présents à réfléchir sur ces paroles et à œuvrer ensemble pour restaurer la grande morale et spirituelle de notre société, guidée par la lumière de la connaissance et de la sagesse. mbokk yi mu mel ni discours bi liñ ci wax ci kàllaamay nasaraan thème bi ñu ngi ko tuddee la crise des valeur quelle solution ou bien quel enseignement tiré des enseignements tere des enseignements de Mame Khalifa Niass mu mel ni crise des valeurs am na bu njëkk dañ ko doon prédire naan crise des valeurs dana am mu mel ni yegg si na suñu jom yàllay tey crise de valeurs mooy lan mooy dem nañu ba autorité amatul tubaab yi dañoo def suñu bopp yi liberté liberté liberté fekk liberté googu noonu dem na ba jur li ñuy libertinage liberté boo ko déggee mun nañ koo firi ci yenn conception philosophique yi mooy nit def lu ko neex waaye nag libertinage moom bu ñëwee dafay weesu ay limite dafay mel ni da nga naan limite amatul kon lu waay neex def mu mel ni loolu dafa ubbeeku internet bi ñëw jube ci part bu conséquent ñu ñëw nag tey ñu ne crise des valeurs am na bu njëkk dafa amoon repère amoon autorité papa ak yaay ñoo doonoon repères yi ñoo doonoon autorité yi ci biir kër yi waaye léegi rek topp tubaab yi def nañ leneen ci xelu papa ak yaay yi lu dul yar doom ak éduquer doom waaye ut xaalis dundal doom te doom boo koy dundal di ko dundal di ko dundal dana dem ba nga xam ne rek dafay nuroo ak mala ndax fi mu bëgg a ndox foofu lay tuuree ndox fi mu bëgg a demee ginnaaw kër foofu lay demee ginnaaw kër akasaa sax su la bëggee mbëkk daf lay taxaw mbëkk la ñu war a taxaw def jàngat xool ci enseignement maam xalifa ay jàngale maam xalifatul xaaj muhammad radiallahu taala anhu mbokk yi jàngale maam xalifa radiallahu taala anhu du dara lu dul jàngaleeb lislaam mbokk yi du dara lu dul jàngaleeb sunna alquran moo nu jàngal aluswa laxat xaana lahum fi rasulillah uswatun xasana liman kaana yuridallahu wal yawmil wa zakara arab diko un exemple parfait yonent bi ci la dund légui nak lii ma wax crise bi cause yi gëna majeur moy société bi ay cellule cellule cellule ñoko composé benn bi mi ngi nek cellule parentale moy xalé bi bu juddoo ba ni muy màggee de l'adolescence à la vieillesse valeur li nga xamné yar bi ñu war def ci mom benen cellule bi moy cellule secondaire bi ñu koy cellule société bi légui nak ñaari cellule yoy yépp dafa nek ay cellules yo xamné dañoo lié cellule parentale bis bu yàqoo rek cellule nécessairement day impacté ci cellule secondaire bi moo tax ñu ne boroom xam-xam yi sang yu baax yi war nañoo ñëw ci kanam solution yi nga xam ne bind nañ ko ci discours inaugural bi ñu leen ciy duggal rek dans la forme ndax ñoom buñ ñëwee ñoom ñooy dugg ci dans le fond diggante doom ak way jur ñu ngi ñuy nettali sëriñ Hadj Mor Diagne ni maam xalifatu Hadj Mouhamad dalal ak jàmm si PM TV di abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga dem ba nga xam ne bu nekkoon ci bool di lekk sax bu ko maam laaj Abdoulaye Niass wooyee dafay bàyyi tibb ba du ko yor sax di doxaaleeg moom loolu muy wane beneen facette soumission ci diggante doom ak waajur valeur yi nga xam ne maam xalifa jàngal nañu ko ci côté société bi aussi maam xalifa nee na ndaw bu nekkee ci société dafa war a am taxawaay taxawaay boo xam ne wabil jiddi wabil xajmin sadidi wabil tuqaa tanaalul maqaamaati rijaalu atiyaat maanaam gëm-gëm détermination ak objectif dafay may nit mu yegg foo xamante ne nii musu koo yaakaar musu ko foog maam xalifa nag solution yim indi ci société boroom xam-xam yi dinañ ci ñëw maam xalifa nee na nit ki bu jëlee tànk ndeyjoorom teg ko ci dëggu ñëpp xam nañ ne problème mu société bi yëpp problème mu dëggu la nit ñi xam nañ dëgg waaye dëgguwuñu mu ne nga jël sa tànku càmmoñ teg ko ci teggin ñëpp xam nañ ne aussi problème mu société bi yëpp bokk na si ñàkk teggin nit ñi dañuy laay ci internet bi di waxante lu ñaaw yooyu yëpp maam xalifa nee na boo jëlee dëggu ak teggin teg ci sa tànk yow ndaw bi lépp looyu witu rek boo ko amul rek xamal ne dafa amul wala yasxadi siddiha wal ëlbi innahuma la yuslaani ila uliya loolu borom xam-xam yi incha allah danañ ko toj mu melni ni Shabaabul nak ñi ngi ñew am ñaari bu benn bi mooy propager les enseignements de mam Khalifa Niass volet boobu noonu tey moo tax ñu initier lii di suñ première édition symposium ziar général Léona Niassène moo tax commencé woon nañ ci volet boobu di ko xóotal ndax am na ay téere yoo xam ne ñu ngi koy burdaa lu mel ni taraxul jinaan ak neerul maram shababul nehmati universitaire ñi nga xam ne ñoo ci nekk université bind nañ ko yooyu yëpp def ko ci kàllaamay nasaraan xam ne premier livre bi dana génn ci mawlud bii di ñëw incha allahu taala borom xam-xam yi toog sang ngi baax yi ñuy déglu ñu ñëwal ci la présentation moom xalifa la vie et l'œuvre du prophète Mohammed paix salut sur lui dañ koy jël rek boole ko ak bu maam xalifa du nekk parti parti danañ ñëw tamit ci crise bi wax euh, juusul tulaa thème yi nga xam ne le enseignement moral yi nga xam ne maam xalifa indi na ko loolu borom xam-xam yi danañ ci ñëw danañ ñëw ci li nga xam ne mooy aussi nattu jamono bu la dalee maam xalifa wax la nan ngay ngay mën a def ba surmonter ko loolu yëpp danañ ci déglu borom xam-xam yi kon mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ngeen ñaanal euh, shababul nehmati lii mu nekk initiative boo xam ne dafay continuer chaque année rek ñuy yokk ndax œuvre si social baax na waaye enseignement yi maam xalifa jàngale il faut ñu mettre ko en œuvre ndax xam nañ ne loolu kese moo mun a sauver société bi ñu bi ñu nekk kon nag ñaan googu maam xalifa di ñu ko naane likayta fuuzu bi nii lil fatxi fii xiini boobu yàlla na ko yàlla wàccee ci ndaw shababul nehmati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu